leetar soo koy bindu day am tembar nga jaare ko yoon kabir tembir ye jëm ca yàlla tembir ba gën a valable mooy seyduna e muhammad rasulullah te yaman bi walwi tabarruka bismi wala taddu fi shayin tariqata rismi فقد قصقص المولى لو خير اسمي ترقى ينن يغنا ترقى ينن يغنا واي كو دفني يالنا nga gis ak sayyiduna muhammad ترقى ينن يغنا بامي خوتي اسمان ياي داو ملان كو يان كوي تاچو war aslafa amlaku wa tijallati mamadou lamin jarna way bëgg sayduna muhammad dem aljanna sallallahu alayhi wa kon def leen nii ñu màggal ko ku sayduna muhammad bëgg nga dem aljanna sérif sa maam ku ko tuddee doom sa yàpp yaram araam na sawara ci fu tànne fi waay waay ne leen manaam mm. isan wa maxsan amul kuy wax ni mel naa ni yont yàlla muhammad def leen ni taar gi ci yuusufa eh! neex baat gi ci daawuda nguurug suleymaan ga faf nañ ko jox doomi abdalaay ja yàlla seyduna muhammad sa maam yu baax yi ñoo di jant yaay seen fajar waaye ku def ni yàlla na ziyaare borom barrière or ba ca Madina allah ahmadin min rabbi salawatuhu yoneen sallallahu alayhi wa sallam la xadaasa man fi xalqi fi xalqi barakaatu yoneen laqad birit samsat duaa mujizatuhu براين لا تنخدي عباته وآياته صبر أم الصخباي محمد لمن جرنا يا يا يا يا يا ku sey di mbay di sawaay nga dénk koy cumbi kaay ana soppe sëñ Babacar yi loxo ca kaw waay di ragal ak tiit sa bañ yàlla yi xeelu bay def leen nii ngir bu nu tere ku lal balang doo tarde ku am xalifa doo jaaxle yàlla di buur bi ko waaye def leen ni ci xale yaa ngi juddu ci ginnaaw mbay te gisuñu mbay mbay lanu gëm xale boo ci waxal Serigne kër Sy mooy maamam faju aajo gaaw na fa mbay ah! Ah! te su dàqu gaaw na fa mbay laaj ko gaaña daan dëkkee mbay fee ca biir ti waawanoo waaye def li ni ngir Serigne Babacar ah. yow rekk yaa wooti fii ba ñëpp jur ci si yaw ak seeni koom ya fa ñoom te sàkku woo ku la ger def leen ni ngir Serigne Babacar Serigne Babacar Sy Serigne Babacar Sy Serigne Babacar Sy il est le marabout le plus éloquent le plus éloquent le plus intelligent le plus sérieux de tous les marabouts du Sénégal waaye def leen ni ci Khalifa Babacar Sy ziyaare borom barrière or ba ca Madina fawqatuhu di leen naan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kon amul len liñ kii defaat muy lu dul dañuy daal di doxe dog ñaan yàlla ki gàmm bu ñuy dugg ni ñu dugg ci ci bismillahi rahmani rahim waaye ñu jënd ci ci alhamdulillahi rabbil alamin yàlla barkeel ñu li nga xamante ne mooy gàmm bi yàlla defal ñu ci jàmm tamit képp nga xamante ne ñëw na fi yàlla ko yàlla delloo yiw képp nga xamante ne am na aajo yàlla fajal ko aajoom defal ko ay mbiram lépp incha allah kon ñi daal di ñaan yàlla gàmmu ba ñu dugg nii yàlla daal di ñu ko barkelal incha allah ak mboolem dëkk yi nga xamante ne ñoom ñoo wër dëkk bi yëpp yàlla barkel leen incha allah kon ñi def fatiha salaatul fatiha ñi daal di ñaan yàlla incha allah yàlla barkel gàmmu bi bismillah اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنذل واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الخزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وشرابها للفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره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 ci turu xalif général famille Chérif Younous Bañeer Chérif Cheikh Tidiane Ahmed Tidiane Aydara ibn Chérif Bachir ibn Chérif Younous di nuyu imam ratib jaañeet ja jaakeen jégalu jaakeen olof nuyu seen imam tabaar fakal la di nuyu euh, chef de village jaakeen di nuyu mboole jullit suñu si naree lim dañuy guddee diggante bi dafa gàtt di leen xamal ne ñun dañ fi teew nekk suñuy tànk yi maam yu nuus moo fi jaar lim fi bay duñ ci xuus diggante bi dafa gàtt mais ci gàttal l'islaam euh, moo ko tax a jóg yu Yunus te l'islam dafa ne innamal muminun ixwa maanaam jullit yëpp benn lañ yal na yàlla tapp xoli yàlla def jàmm jaakeen jàmm Sénégal jàmm ci réew yëpp eh, yàlla jàmm sax ci àdduna bi loolu nay wax ci gàttal ci lii tax ñu ñëw ci gàmmu jàngeet suñu maamaa ko liggéey liggéey bi nag dañ ciy xuus si guddi bi di wax bës bu ngeen tànn di ko jégleen suñu maam Muhammad nabiyun azibun qadra bil haq mursalu oustaz xam na bu baax li may wax dañ ci wax euh, bés bi dafa rëy ñu dañu bëgg ndax mbooloo bu dajee dara taxu leen jóg lu dul yàlla ak yenente ba suñu dawee tuuti ci suratu al azam jàngakat nga mu ñi xamal ne wa man yuti allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima man yàlla ku ma tapp teg si muhammad sallallahu alayhi wa sallam tëdda faw kon jàpp nañ ne waa jaake ni tëdda ngeen ba faw eh, yal na fi yàlla def juboo mbooloo yalla tappa xol yi nekk benn guddi bi nag ñoo ko bokk daañ ñëw ku nekk li nga xam si lu tuuti ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu xuus si si ay qualité am juddam ba ci ay qualité am ci bés bu muy génn ci àdduna loolu mooy waxu Cheikh Tidiane Ahmed Eh, ibn Chérif Bachir ibn Chérif Yunus Bañeer ak délégation bu ma àndal su may rakk ñoo ngi ni ñoo ànd ñoo teew fii suñu xalif Bañeer di leen jaajëfal bu baax di ne alhamdulilah rabbil alamina sant yàlla santaat yàlla jërëjëf. Monsieur le sous-préfet de d'arrondissement de Loudia Wolof. Monsieur le président du conseil départemental d'Oussouye. Monsieur le maire de la commune d'Oukout, Monsieur le commandant de brigade de la gendarmerie d'Oussouye, Mesdames, Messieurs, les conseillers départementaux et communaux, Mesdames, Messieurs, les chefs des services locaux, Messieurs les chefs de village, Messieurs les imams, chefs religieux et coutumiers, Mesdames, Messieurs les notabilités locales, chers invités de la Oumma, de la chrétienté et des religions traditionnelles. C'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom de la population de Diaken Wolof à l'occasion de cette cérémonie officielle du Gamou commémorant la naissance de notre prophète Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je voudrais tout d'abord sacrifier à la tradition en souhaitant à nos illustres invités la bienvenue à Jaken Wolof. village riche d'une tradition hospitalière transmise de génération en génération. Diakhen Wolof vous dit assalamu aleykum wa rahmatullah La population de Diakhen Wolof est honorée de vous compter parmi ses hôtes pour cette cérémonie officielle de la 80e édition de son Gamou annuel. C'est ce legs inestimable que les nouvelles générations s'évertuent à perpétuer sous la conduite éclairée des anciens et de nos guides religieux. Une fois de plus, les nouvelles générations rendent un vibrant hommage aux illustres précurseurs de ce gamou, initié en 1945. À la tête de ces pionniers, on peut citer Imam El H. Sherif Yunus Ndiaye, figure de proue de l'islam dans la seconde moitié du XXe siècle dans le Kassa. qu'Allah soit satisfait de leur œuvre amin ya rabbal alamin cette instance est également une occasion de magnifier la cohabitation pacifique entre musulmans chrétiens et praticiens des religions traditionnelles dans cette contrée du Kassa en atteste la diversité de cette assemblée Monsieur le préfet, Mesdames, Messieurs les invités, nous commençons cette allocution par nous incliner devant la mémoire de notre guide Serigne Mam Ousmane Sy Dabakh, rappelé à Dieu le 21 mars dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De Dieu nous venons, à Dieu nous retournons. l'année dernière, il avait été retenu par la maladie. Nous avions prié pour lui en espérant que cette année, nous serions ensemble à ce lieu pour commémorer la naissance du sceau des prophètes, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le faisions depuis 2013. Mais Allah en a décidé autrement. les populations de Diaken souhaitent plein succès au nouveau président et à son gouvernement pour un Sénégal prospère. Monsieur le préfet, veuillez transmettre au président de la République nos vives félicitations pour sa brillante élection à la tête de notre pays. Monsieur le préfet, les populations de Diaken Wolof vous manifestent leur satisfaction pour les mesures prises par vos soins et par vos services techniques pour la bonne tenue du Gamon annuel de cette année. Veuillez transmettre cette même satisfaction et les remerciements du village au gouverneur de région, au ministre de l'Intérieur, au Premier ministre et au Président de la République Les populations sollicitent votre diligence, monsieur le préfet, pour être leur émissaire auprès des plus hautes autorités pour la réalisation d'un réseau d'addiction d'eau portable pour desservir toutes les concessions du village et du bitumage du tronçon Diaken Diola, Diaken Wolof, Janten, Loudia aux élus nationaux et aux ou territoriaux, haute notabilité et bonne volonté de, du département et de la région. Diakène Wolof vous dit merci pour votre soutien et votre implication pour la réussite de la célébration du Gamou 2024. Monsieur le préfet, les populations, à travers messieurs le chef de village, l'imam et les notables remercient particulièrement le commandant de brigade de la gendarmerie d'Oussouye et l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour la bonne prise en charge de l'aspect sécuritaire de l'événement. Aussi, ces remerciements sont adressés à l'ensemble des services régionaux, départementaux et locaux qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite du Gamou. Fidèle à ses valeurs islamiques, le chef de village, le village de Jaken Wolof continuera d'œuvrer pour consolider davantage les relations de solidarité, de paix et de bon voisinage avec les différentes communautés du département. Enfin, Nous vous remercions tous d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie officielle. Nous remercions aussi la presse avec, à travers le groupe la Médias du Sud. Ils sont là avec nous pour la couverture de cette cérémonie. Et vous donnons rendez-vous cette nuit pour la soirée religieuse qui sera animée par monsieur par imam Moustapha Mboup asalaamu aleykum wa wa barakatuhu waa Jàkkeen Wolof ñu ngi leen di nuyu ginnaaw bu ñu sante yàlla ci ni ngeen ñu dalale ñu ngi leen di dolli di gërëm di leen delloo njukkal di leen andi nuyoo bu monsieur le maire di leen di xamal ne it bëggoon na fi teew wante dafa am empêchement ñi leen di wax ne mbégte bu rëy la ci niñ fi teewee tey naka niñ fi teewee woon ati yi fi passé ñii nuyu borom dëkk bi di chef de village ak ay naataangoom di nuyu imam ak ay naataangoom di nuyu shérif di nuyu bépp gan bu fi nekk wandef di nuyu it suñuy autorités yi muy préfet ak ay naataangoom ak service technique yi fi teew ñiy ñaan yàlla num ko defee woon daaw mu dolli xeeb may ñu xol yu juboo may ñu wergu yaram may ñu it ñi mën a di waxtaan di juboo ñiy dellu si ci yéen di sàkku ay ñaan ndaxte xam nañ ne tey bés bu rëy la bés bu am solo ci ay kàddu dégg nañu fii ay nit ñu wax ñiy firndeel li ma nar dolli ci biir balaa ma àgg si loolu maa ngi leen di wax ne kontaan naa lool sànq bi ñu demee ba waxtu julli jot ñi daldi gis ne xol yi yëpp dal ñoo do booloo doon benn mu di mbégte bu rëy muy loo xam ne loolu day wane nekk bés bi bés bu yàlla barkel la kon yal na yàlla dolli xeeb barke boobu nekk ci biir dëkk bi barke boobu nekk ci biir Sénégal yépp euh, ñi sàkku ñaan di ne dañoo ñëw ñun ñëpp booloo doon benn di delloo suñu xel ci yàlla kon ñi sàkku ñaan ci suñu way dawlu yi yàlla xare ci arjana yi gën a kawe képp ku fi teew yàlla yokk la wér-gu-yaram ak gudd fan mu lafal ñu cat dakkal ñu saytaane ñii ñaanit ci biir valeurs yi nga xam ne moom la yoon bi di wone maanaam islam ñii si sàkku ay ñaan ci suñu gone yi ndax ñoom ñooy di suñu ëllëg ci biir ñaan yooyu noonu liñ ciy bëgg moo di xale yi surtout ñu mun a jege mag ñi ñu déglu leen ndax am na yéete boo xam ne mun nañ ko si for te lu mun a am njëriñ la si ñoom ndaxte ku ne xam na ne islam am na vole éducation donc bu gone yi jege si surtout mag ñi fi nekk kilifa diine yi surtout ñu mun leen delloosi si yoon ci biir présentation yi am na ku fi ne suñu tiitaangee yàlla dolli xeeb a ah, Sénégal am na fu ñu ñëpp doon xalaat wande ci ay ñaan ak taxawaay kilifa heureusement Sénégal tey moo ngi nii kon boog ñuy ñaan Sénégal dellu ca kanam di leen di wax ne it bëgg nañu lool di remercier képp ki nga xam ne yaa xam ci xel yaa xam ci kaddu yaa xam si jëf nga nekk fii wala da nga sori yàlla delloo la ci li li nga andi te mu yëkkati la yaa xam ci service nga nekk mu yokk la wërsëg sutura doon si ñépp loolu moo dee noonu suñu kàddu yu gën a gàtt di jéggalu ci lu bari bari bu dee suñu kàddu dafa am fu mu mooy wande ñiy dollandeeku ci yéen merci beaucoup kàddu gi dama ciy jiite ay baatu nuyoo jagleel ko d'abord chef de village bi nga xam ne moom moo fi teewal administration defe naa jarul may nuyu sous-préfet ak son juin ak ñëpp parce que ñun ñoo ànd donc ki fi teewal administration mooy le chef de village maa ngi koy nuyu di nuyu imam ratib moom sama sama waay la noonu laa koy waxee di nuyu tamit délégation chérifienne bi jógee Banger fekk tase woon naa fi ak ñoom daaw yàlla defoon na tamit liggéey naa Sédhiou balaa may ñëw côté yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu tamit xalif bi nga xam ne moom ngeen fi teewal loolu passé ma nuyu yeneen chef de village yi ak yeneen kilifa yi fi nekk te nga xam ne diine moo leen fi toogloo nuyu tamit askanu jaakeen wolof yëpp ñi fi teew président comité d'organisation bi góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp ñi fi teew tey te nga xam ne bés bi moo leen fi dajale ku ci nekk maa ngi lay nuyu ci cër bi nga xam ne moom la yàlla jagleen ginnaaw baatu nuyoo yooyu dama bëgg a teg ay baatu sant yàlla di ko gërëm parce que mayoon nañu daaw ñu fekkee ko tal ko ba ñëwoon fii bokk ko ak yéen mu mayaat ñu tamit ci mbaaxam ren ñu fekkewaat ko tal ba ñëw fi bokkaat ko ak yéen te defe naa loolu bu ñu ko defalee war nañu ñu sant ko bu baax a baax bëgg naa tamit ñu fàttaliku ñi nga xam ne nekkoon nañ fi daaw ak ñun te ci diggante bi yàlla def li gën di ñaan ku nekk ci ñoom mu jéggal ko te xare ko ajana bëgg a bokk ak yéen tamit tiis wi ngeen amoon ci sëriñ maam usmaan si Dabakh bi ma fi ñëwee daaw waxoon nañ ñu ne yaram bu suutante moo taxoon mënu fi woon teew ci diggante bi tamit moom yàlla def na li gën ñu bokk ak yéen naqar bi te di leen jaale di ñaan yàlla fay lépp li mu def ci diine bi ak ci askan bi bu loolu weesoo li ma siy teg mooy firndeel rekk mbégte bi ma àndal ñëwaat fi ren bokk ak yéen bés bu mag bi te mbegte boobu li ko wund li ko lal dafa bari li ci jiitu mooy bés bi ñu fi dajalee ñun ñëpp kenn naa tablewul ne bés bu mag la bés bi ñuy fàttaliku le prophète de l'islam bés bu am solo ci diine lislaam donc bu ñuy ñëw di ko bokk ak yéen mbégte rek lañu mën a àndal kooku benn la bi ma siy teg mooy suñu ay tànk saa yu ñu jógee di dem di bokk ak askan wi xew-xew bu jëm ci diine bànneex rek lañ koy defee en tant que ndawu état wu Sénégal parce que dafay doon toujours pour ñun occasion pour ñu feddali colère bi nekk diggante état ak ñi fi teewal diine ak diine bu mu mën a doon ànd bi diggante li ñuy wax spirituel ak temporel yàgg na ba Sénégal doonee Sénégal ba léegi gis nañ ne ñi fi teewal nguur ak ñi fi teewal diine ñoom ñaar ñoo ŋànk réew mi xanaa mën nañ ko waxee noonu ba tax nda saa yu ñuy ñëw rek mbégte la ñuy àndal bu loolu weesoo xam nañ tamit taxawaayu nitu diine yi muy fii muy feneen ma bëgg a rafet lu taxawaay boobu parce que xam nañ ne yéen a ngi fi di jàppale askan wi di ko gindi di ko encadrer di ko former di ko éduquer te loolu defe naa dara gënu koo am solo ci réew parce que xam-xam am na solo mais xam-xam bu àndul ak yar ak diine defe naa amul benn benn njëriñ moo tax seen taxawaay rafet na ma bëggoon ko saluer tey ci bés bi nga xam ne moom moo ñu fi moom moo ñu fi dajale dafay nekk tamit toujours occasion pour ñun ñu gën leen a tàllal loxo gën a tàllal loxo kilifa diine yi gën a tàllal loxo ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi taxaw ci diine mais aussi gën a tàllal loxo askan wi kilifa diine yi rawatina fii ci jaaken wolof bu ñu leen tàllalee loxo dañuy bëgg taxawaay bi gën a dëgër ñu ñaan yàlla mu jàppale leen ci loolu xam nañu tamit ne ñàkkuñu ay jafe-jafe wax nañ ko fi léegi réew mi am na fu mu jaar ba fu mu yegg si fii tey xam nañ tamit ne ci suñu biir dëkkuwaay yi ñàkkul ay jafe-jafe ci diggante njaboot yi diggante askan wi xam nañ tamit ne suñu ay ndaw am na lu bëri li tubaab di wax risque ak menace yoo xam ne daf leen di daf leen di menacer chaque jour te bu ñu seetloo tuuti gis nañ ne am na lu bëri lu fi nekk mu ngi bëgg a sànq suñu ndaw ñi te occasion bi dafay doon toujours pour ñun ñu tàllal leen loxo ndax ngeen gën a taxaw ci fànn yooyu xam nañ ne ku fi nekk di déglu presse di déglu rajo depuis ay jamono gis nañ ni violence am na fi wàll depuis ay jamono gis nañ ne ñaari fan du weesu te dégguñu fi drogue bu ñuy jàpp te defe naa loolu tamit lu lor askan wi la ma bëggoon rek ñaan leen saa yu ngeen xamee ne am ngeen occasion tubaab di ko wax opportunité saa yu leen ndaje yëkkatee ngeen mën a bàyyi xel ci message yu sensibilisation boobu pour ñu gën a yee suñu ndaw ci lépp li nga xam ne dafay fànq seen àdduna tàllal loxo bi tamit dafay doon ngeen gën ñu jàppale yéen kilifa yi fi teew yépp ku nekk ak cër bi la yàlla jox rawatina gi nga xam ne moom moo leen gën a jege di sous-préfet am na ay jafe-jafe yu ñu war di gérer te luñ ci gere soxla ñun tamit baatu chef de village soxla nañu baatu kilifa diine soxla ñu baatu kilifa aadu aada soxla nañu baatu mag ñi nekk ci ci dëkk bi ma leen di tàllal loxo tamit ci fànn woowu li ma ciy teg te nga xam ne mënuñu koo bañ a def mooy gën a tàllal loxo di sàkku ñaan ci li nga xam ne moom mooy département bi di sàkku ñaan tamit ci région wu Casamance mais di sàkku ñaan tamit pour Sénégal te bésu tey bésu tàggas yonent bi la waaye bésu ñaan la tamit ma bëggoon tey ngeen boole ci seen ñaan lépp li nga xam ne dafay gën a dalal réewu Sénégal gën a dalal xol yi gën a dalal xel yi ndax nit ñi mën a gën a ànd gën a jëm kanam bëggoon daal imaam ak kilifa yi fi teew yëpp bu ngeen di ñaan tey ngeen boole ñaan yi jëmale ko tamit ci ci fànn woowu yàlla defoon ñu jàmm ci dëkk bi li ñu fi wax nag ci doléance yàlla def na déggoon naa ko daaw yàlla def na tamit ñun bu ñu nekkee ci dëkk bu ñu xëyee ba ngoon luy saafara jafe-jafe askan wi rek moom moo ñuy yëkkati mais yàlla dafa def tamit mbiru état gaawul xëy na moo tax ñu dem ba tasewaat fi te ay jéego amu ci mais li may wax rek mooy ñun lu ñu tàyyi di informer les autorités supérieures ci lépp li nga xam ne mooy bëgg-bëggu askan wi te bu ñu yàlla mayee ñu jóge fii ak jaamu tamit ci tànk yooyu rek la ñuy la ñuy wëy di ñaan xëy na bés jot ñu mën a ñëw fii bu ñuy ñëw ñu jël route goudronnée ba yegg si fii loolu la ñuy ñaan te lépp liñ ci mën dinañ ko jéem a dox waaw loolu daal mooy kàddu yi ma leen bëggoon yéggee di leen gërëm ci déglu bi di leen feddaliwaat suñu disponibilité ak ànd ak yéen ak ànd ak askan wi ci lépp li ma mën a doon di leen sant di leen gërëm ci déglu bi rahmaan rahim huwa allahu alladi la ilaha illa huwa almaliku alquddus السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارع المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها لا إله إلا هو العظيم لا إله إلا هو العليم العظيم لا إله إلا هو رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام يا من بيده ملكوت كل شيء يا كن فيكون أستجب دعاءنا بحق توراته والإنجيل والزبور والفرقان اللهم يا ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا ربنا انصر إخواننا في فلسطين اللهم يا ربنا انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي صوماليا وفي بلد المسلم آمين يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أبا فاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب وإبراهيم وهاشم وعبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين بشيرا ونذيرا وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام ليلا وسلام نهارا وسلام في سنغال وسلام في سنغال وسلام في سنغال وسلام في كازاماس وسلام في كازاماس وسلام في عسوي وسلام في عسوي وسلام في جاكن وسلام في جاكن وسلام في جاكن وسلام وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

Serigne Cheikh Tidiane Sy Serigne Cheikh yàlla ko yàlla gërëm bëgg moo demoon musar si diine wal musar si dat bëgg Serigne Cheikh demoon ku bëgg Serigne Cheikh loxul fa gaynde jaay bëgg gaynde yóbbu na gaynde jaay baat bu lër sëtu Maodo bëgg jam bi diine saa musar si diine wal musar si dat bëgg Cheikh Tidiane lan waale ku bëgg Serigne Cheikh loxul sëtu Maodo bëgg Cheikh di tiit ba jëm daw di يخدم ربته تجار مكتوب مفود ست مكتوب رخو عمنا برم أيوة شري شيخي برم رقب مكتوب رخو عمنا برم شري شيخي برم رقب مكتوب جبايل بقرق أمنا برم جنة فقل جنة جدي لرق بس دقرق دخ شري شيخي برم رقب مكتوب إيمان من دستار سنين ولا sida sëriñ Cheikh demoon na bëgg sëriñ Cheikh loxo ngay léegi tey na yóbbu na gay na bëgg sëriñ Cheikh loxo sëtu Maodo moktal bi diine saa mu sar si diine wax mu sar si dat Cheikh ci jàlla ñu wàlle ñoom bàkku leen sëtu Maodo Cheikh di tiit ba jëm daw di def ba tey di ci jàll moktal xamuku déedé sëtu Maodo mbokk yi ruko amana jinne fekk la ci ruko ci daje di la rëq ba sa digg rëq ndax Serigne Cheikh ay borom ahmadin min rabbi salawaatuhu yonen ku sopp yonent bi defal ni ñu màggal ko waay la halaadu لدن هدين وحباته وآياته وسطور وعمل وسطور محمد لمن جرنا يا يا يا يا ودفني يا لنا زيارة برم بريرو أور بيش مدينة ينر الله أحمدين من ربي صلواته sallallahu alayhi wa sallam لقد زمت في قلبي بركاته لقد برت شمس الدعاء معجزاته برائنه لا تنقدي sant woo suubool wa am woo suubooy Amadu Lamin jarna yaay yaay yaay waaye ku def nii yàlla nga ziyaare sang ba ca Madina te yemal di wala tabarruka bismi Sëriñ Moustapha moom lépp loo tàmbali soo bëggee mu barkeel tàmbalee ko turam moom yonent bi waaye lépp looy feeral la soo bëggee mu barkeel fermee ko turam moom yonent bi moo tax Seex Maam Seydi El Hadji Malick def leen di màggal ba keroog dara maam aram loo kumba caam saa wàdd forma jóob bugguma penda ak paata penda xar yàlla bopp coor def leen di màggal bàyyi Sëriñ Babacar Si bëgg bàkk yi mi bàkk yàlla yàlla recevoir ak yorom Muhammad ak dëggam yàlla ak discipline la ndax leetul soo koy bind buur day am témbal lettre yu gën témbal yu gën a valable mooy sayyiduna Muhammadu Rasulullah tayaman bi wal tabarruk bismihi ولا تعد في شيء طريقة رسمية فقد قسم المولى له خير قسمه ترى خير يدنا ويدفني يا رسول الله xaraqaa yeneen yéeg na ku def ni yàlla nga fekkee déwén xaraqaa yeneen yéeg na ba muy xotti asamaan yeey daw malaaka yaa ngi koy tàccu waxat asafal am naa tu haa wata jullati ba mut la nag jar يحبون يعصمي محمدا صلى الله عليه وسلم أجل الوراثة وأسلا وماتدا وبينا أتابا له رحمن نسلا ومولدا كما زال بمن حال والحق يبرو محمد لمن جرنا الغانا الولد من بازايا يا إيمانا الولد من بازايا Oh, المزايا من قد اشتهى فيا لله من على الله ويلنا ما نايلا تميم المزايا شوفا ويمنايلا تميم المزايا وخجا قومي همة العوض بالعالي العادة تربية النعمة المربي مريب الحق يرضى أتاه ختم من الرحمن والجاه أتاه ختم ختم شهد الدول أتاه ختم من الرحمن الدول أتاه ختم ختم كل شهد الدول أتاه ختم من الرحمن والجاه

سبع الناس غرق فيه جدوى لغري لغري ملك بمبي ما خبكم ملك بمبي وادي بالعبيد في أمفي دود في أمفي دود في أمفي جدوى وفي جدوى Cheikh Tidiane sharifuna be imamam fi jadwa Cheikh Tidiane sharifuna be imamam fi jadwa Cheikh Tidiane sharifuna be imamam fi jadwa Cheikh Tidiane sharifuna be imamam fi jadwa Cheikh Tidiane sharifuna be imamam fi jadwa Khudul maktum tajul تاج العارفين برزخ المكتوم تاج العارفين ربك شيخ تجعل خلب المكتوم تاج العارفين برزخ المكتوم تاج العارفين ربك شيخ تجعل خلب المكتوم تاج العارفين برزخ المكتوم تاج العارفين فيدة سيدي العالم مولى في جدوى شجارة سيدي العالم مولى na bëgg si Babacar Si maam Xalifa Babacar Si jël na bëgg si Babacar Si maam Xalifa Babacar Si

bëgg sëñ Babacar Si maam Xaliwa Babacar Si jël na dama yow yaay borom leer maam Xaliwa Babacar Si jël na dama bisu bu ko delloo jógal taxaw Babacar Si jël na dama la baax yaay sëñ maam Xaliwa Babacar Si jël na dama bisu bu ko delloo jógal taxaw Babacar Si jël na dama la baax yaay sëñ maam xaliwa sëñ Babacar Si jël sa dara si bu ko dara ci sa xol loxoy ca kaw Babacar Si jël na dama la baax yaay sa xaliwa Babacar Si jël sa dara si bu ko dara jógal taxaw Babacar Si jël na dama la yaay borom maam xaliwa واسكني بها داري على داري الدار إسلامي أربعون خل ذاك العدل ذاك العدل للورتي سهل خيتك وكروت المدى إذا روت المدى إذا روت المدى إذا روت المدى إذا روت المدى إذا روت sëriñ mam xalifa Babacar Si jël na ndam la lii màggalu mam xalifa Babacar Si jël na ndam la mam xalifa Babacar Si jël na ndam la Babacar Si jël na ndam la yaay seen sëriñ mam xalifa Babacar Si jël na ndam la xalifa maam xalifa sëñ Babacar Si jël na ndam la yaay borom leer maam xalifa Babacar Si jël na ndam la ñu màggal maam xalifa Babacar Si jël na ndam la baax yaay sunu sëriñ maam xalifa Babacar Si jël na ndam la innani xatuntu min ahlin dari ahlin ومسكني بأعلى داري بأعلى داري الداري حسناني أربعون خلدة الأمان خلدة العدل نورتي سلي لخيتك وكبرت المدد ونورت المدد ونورت المدد ونورت المدد Babacar Si jël na ndam la yaay sunu sëriñ Maam Xalifa Babacar Si jël na ndam la fii jatuwa Muhammadu Mansour kër ga ca gannaaw baayam kooku mooy baay sëñ Bay Mansour kër ga ca gannaaw baayam ñu màggal Muhammadu Mansour kër ga ca ñu ngi gërëm waa eaux et forêt bu usuy eaux et bu usuy ñu ngi leen di gërëm yal na leen yàlla fay yàlla taxaw leen yokk seen garaat ñoo ngi gërëm waa esawut suñu dëkkandóori yal na leen yàlla fay di gërëm waa kañut waa wendaay waa jàkkeen ñu ngi leen di gërëm di kontaan si yéen ñoo ngi gërëm communauté musulmane de Kagit de Kagnout communauté musulmane de waaw ñoo ngi gërëm communauté musulmane de Loudia waa jàkkee ñu ngi leen di gërëm ñoo ngi gërëm monsieur le maire de Oussouye Ousmane Landry moom tamit dugal na loxam bu baax a baax a baax ci guddi bi yal nañ ko yàlla feyal yàlla taxaw ko sàmm ko lépp li nga xamante ne mu ngi koy yoot yal na ko yàlla yomb yombalal ci daraja nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi gërëm waa Wendaay wax nañ ko léegi di gërëm Aliou Wade Aliou waa jàkkeen ñu ngi lay gërëm yal nañ ko yàlla fayal ñu ngi gërëm imam bu Elenkin imam bu Elenkin waa jàkkeen ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di gërëm waa Jemberin Jemberin mooy communauté musulmane de Jemberin ñoom tamit ñu ngi leen di gërëm teew nañu fii ñu ñu fi lim yëpp daanaka ñu ci gën a bëri teew nañu fii am na ay délégation yi nga xamante ne ñu ngi fi si mbo si mbooloo mi yal nañ leen yàlla fayal ñu ngi gërëm Alaaji Jàllo moom tamit doom la si dëkk bi ñu ngi koy gërëm di ko sant di koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla yaatalal wërsëgam ba muy yàgg di def lu mel nii ñu ngi gërëm Mamadou Ndiaye jullum moom tamit mu ngi fii si mbooloo mi waa jàkkeen gërëm nañ la bu baax a baax ñu ngi gërëm centre culturel bu jàkkeen centre culturel bu jàkkeen bokk na si li nga xamante ne moom moo taaral tànt bi mooy fu ñu defee cérémonie officielle bi kon yal nañ leen yàlla feyal yàlla taxawul leen ñu ngi gërëm mosquée de Cabrousse mosquée de Cabrousse ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ba tey ñu ngi gërëm fédération des imams et oulémas et notable de l'arrondissement de Niaguis waa Diakène ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla fay waa leeral <coughs> TV waaw mooy média bi télévision bi fi nekk ñoom tamit ñoo ngi leen di defal mention spéciale waaw ndaxte li nga xamante ne moom mooy xew si guddi si ñoom ñoo koy tasaare ak GMS GMS waaw li nga xamal lépp li nga xamante ne moom la ñuy jàng si guddi si ñoom ñoo koy yaatal ba àdduna bi yëpp ñu jot si kenn amul seen fay yàlla na leen yàlla feer si daraja nabi Moustapha sallallahu alayhi kon nañu yemale foofu ngërëm yi ba si kanam ñi jox kàddu gi imaam imaam bu jàkkeen wolof ñu ngi lay jox kàddu bi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk ñu ngi leen di nuyu nuyoo lislaam nuyoo bu nga xamante ne ci suñu borom la jógee ko muy nuyoo bu nga xamante ni lamboo na ñetti mbir ñetti mbir yooyu noonu nga xamante ni moom la adduna bi yëpp soxla bu ci jiitu moo di lan muy jàmm waa Casamance ana lan lañ doon ñaan yàlla jàmm lañ doon ñaan yàlla waaye yàlla mujj na leen may jàmm kon yàlla jàmm jooju sax ci bépp barab bu nekk ginnaaw bu nga xamante ni suñu borom subhanahu wa taala may nañu jàmm waaye du ci yem de ana lan la ciy teg dañu daal di muur yërmandeem ñaan bi bokk na ci loolu muy nuyoo bu nga xamante ne ci yàlla la bàyyee ko moom lañ leen di waxal nii ginnaaw bu ñu muuree yërmandeem ci kër yi ak bépp place dëkk yëpp mu daal di ñu barkeel ci lépp lu ñu yëngu na nekk yàlla nañ defal barke ginnaaw loolu nag ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaye yàlla ñu ngi koy jéggalu suñu baakaar di ko ndimbalu ci ndimbalam mu daal duñu dimbali ñun ñëpp ginnaaw loolu ñu ngi sant sërif yi nga xamante ne ñoom fi teew muy waa Banger ak waa Mahmouda ñu ngi leen sant bu baax a baax waa jaaken bépp doom jaaken ñi leen ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant di leen dox seen wàccuwaay di leen naan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di nuyu chef cheikh sëriñ bu mag bi muqaddima bi nga xamante ne mooy Cheikh Moustapha Moustapha Mbuub ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di jox sa wàccuwaay ak ñi nga xamante mu nga àndal ñëpp yal na yàlla taxaw la yàlla dëgëral la ci sa liggéey bu nga xamante ne moom ngay def di nga ñëw def liggéey bu rey incha allah xam naa dinaa la ubil tuuti rek daa di la bàyyi nga continuer sa liggéey di nuyu chef bële Serigne bële incha allah Bousra Serigne Bousra ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. waa Jaakin ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp incha di nuyu chef de village di nuyu bépp képp nga xamante ne teew na fi ci jotaay bi di leen ñaanal yàlla yal na yàlla taxaw leen yàlla defar seen mbir defar suñu mbir ñun ñëpp alhamdulillah mbokk yi tey ana lan mooy suñu waxtaan tey ci yeneen bi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te la ñuy bëgg a waxtaan te incha allah bi dina ko waxtaane incha allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yéen yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo ñu njëkk addul ci alquran mu ñuy xamal lu mu mel mu ne ko wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi bashiran wa nadira allahu akbar dégg nga lu mu ko wax day mu ne ko yow muhammad dañ la yónni ci mboolem nit ñi ñëpp pour lan moo tax ah pour nga leen di bégal ni aljanna am na waaye nga di xub ni safara am na ni ñu may tëndik bu baax a baax bashiran wa nadira waaye yal na ni ñu la ci ñi nga xamante ne dañuy dégg xub bu nga xamante ne moom lay xub waaye bégg lañu ci ñi nga xamante ne mu ngi leen di bégal ni aljanna am na kontaan nañu bu baax a baax ci yéen soxna yi seen taaruwaay macha allah jazakumullah xayran yal na yàlla rafetal seen taar yi yàlla seen taar bu ngeen taaroo nii ak ni ngeen dëggoo nii seen xol yi nekk benn nii yàlla na continuer loolu la ñuy ñaan yàlla seen xol yëpp nekk benn waaye ñëpp juboo nekk benn seen xol yi nekk benn ngeen jàppalante ni ngeen couleuree nii yàlla seen nekk benn couleur bu doon bu weex tal muy la ilaha illallah mu doon seen xol bi muy doxee seen xol na ko yàlla def taaru ngeen macha allah mi ngi mel ni xuurul ay yi nga xamante ne ñoom la yàlla parpar waa aljanna yàlla na ko yàlla def ci waa jaaken ni képp ku fi teew jigéen yëpp yàlla ñu doon xuurul aljanna yàlla yu war a dugg aljanna bépp góor yi tamit ñu ne góor yi nga xamante ne góor yi nga xamante ne ñooy nag góor yi aljanna ya góor aljanna yàlla mun na ko misaal bi dafa mel ni dafa mel ni bis ba nga xamante ni allah suñu borom subhanahu wa taala dina dajale nit ñi ci rendez di ba ba nga xamante ne àllaaxira jot na bee def na lu muy pare ñu war a dem aljanna allahu akbar dafa mel ni comme jotaay bi dafa mel ni loolu la mel fii jaaken yàlla dina def jaaken aljana de yàlla dina def jaaken aljana de yàlla na ko yàlla def nu mu koy defee nag mooy na xol yi nekk benn rek incha allah xol yi su nekkee benn yàlla dafa ne waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu allahu akbar mu ne waatasimu na ngeen ngoy waatasimu na ngeen téye bi hablillahi jamian ci buum yàlla bi yéen ñëpp wala tafarraqu waaye ngalla waaye doom jaa kenn bu kenn teqali ko ak kenn ñun ñëpp dañu mel ni comme li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax al mumin lil mumin kal bunyaani yasuddu baaduhu baada allahu akbar jullit ak mbokk jullitam dañoo war a mel ni comme miir bu taxaw nii waa jaaken loolu la ñu war a mel te loolu laay ñaan yàlla waa jaaken yàlla ñu mel noonu muy côté jigéen ya waaye muy côté jeunes ya waaye muy côté paa ya ak grand yi ñëpp loolu laa bëgg waa Jaakeen mel loolu incha allah yal na ko yàlla def yal na ko yàlla def seen xol yëpp nekk benn xol yàlla ñu juboo kenn du amal kenn dara loolu lay ñaan yàlla kon mu ne ko kalbun yaani yasuddu baaduhu baada mi ngi noonu kon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci moom la ñuy nekk ba tey yàlla ko ne wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin allahu akbar wa ma arsalnaaka waay yow Muhammad yónniwu ma la waaye lu dul nga doon yërmande yërmande ñeel mindee fii yëpp yal na ko yàlla saxal Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam suñ borom subhanahu wa taala ba tey mi ngi continuer parce que tey bisam la bis Muhammadu rasulullah moom la ñu war a nekkal ci moom la ñuy waxtaanal guddi bi incha allah damay ubbi rek jox kilifa gi mu continuer liggéeyam suñu borom subhaanahu wa taala mi ngi wax ni muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla fay leen walladina maahu ashiddaau ala alkuffari ruhamaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwana siimaahum fi wujuhihim min athari sujudi dalika mathaluhum fi altawrati wa mathaluhum fi alinjili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 mu ne ko muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy walladina mooy ki nga xamante ne maahu àndi naak ñoom ashiddaau ñu tar ñoo xamante ne ñu tar lañ ci yéeféer yi alal kuffaari waaye nag ruhamaa ku noy la baynahum suñ diggante taraahum dañ koy gis rukkaan mi ngi sujjoot ah yabtaguuna ana lan lay sàkku lan lay sàkku yabtaguuna mi ngi sàkku fadlan ngëneel min allahi bay koo ci yàlla siimaahum mu ne soo leen bëggee xool nag da sen xool seen kanam seen xar kanam ya mi ngi ba mi ngi marqué seen bopp sen seen jéyee mooy ñooñu ay jullikat lañu siimaahum fi wujuhihim min athari sujud dalika ñooñu masaluhum seen misaal fi tawrooti nekk na ci tawroot wa masaluhum fi l injil seen misaal tamit nekk na ci injil allahu akbar kon muhammad ah bis bi nag guddi bi comme moom ku ko war a kii moo tax dama doon barkellu waaye mënoon naa ko continuer waaye day ah ku ko war a def mi ngi nii mënoon naa lu bëri nak day ah waaye comme o oh, sëriñ bi ko war a def mi ngi nii waaye su ma joxee ndigal day incha allah ñi daal di koy taal incha allah yal na yàlla barkel leen jërëjëf jazakumullahu xayran xayra jaza sagar ci gaamu خلوی کچھ سادر چیگاو گی تم خیرینی سکم ایچے مائی پردر کردو ہے تم خیرینی سکم ایچے مائی پردر کردو ہے